nga war a sa taxawaay ci bis ah waaw li ma sama a ci bis bi ànd taxawu Madiyana ñu bokk association bi bokk ci kàngam ñu ko jiite ànd koog ñoom Balla Gaye day taal bi noo takku ngir defal Madiyana rek moo leen tax a jóg ñu daje ne laaj seen bis bi di ñaan képp ku ci mën a jàpp nga jàpp ci ci ndëgalu xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg te wér ci ndëgalu sëriñ Cheikh Say Mbacke si Sidi Abdou Lahad waxtaan ñu taxaw di ko lancé di wax li ñu fi jot a liggéey ci Madiyana muy ndox mi fa jot a joxe ak numéro yoon joxe tëlsi bi moom lañ doon lancé ji di ko wax parce que ànd ak ñoom ndax lépp nekk rek ñu nekk ànd koog ñoom. seen taxawaay ci dëkk bi ñàkkum ndox mi liñ ci liggéey en tant que. xanaa rafetlu ko loolu nag ànd ñoom. ndax Madiyana xam man Madiyana ah, ñàkkum ndox météo la topp waaye macha allah fi mu ne moom waxatul dara fu ne ndox maa ngi fay jaar. amiin amiin amiin amiin waaw bokk bàyyi moom sa bàyyi suñu seex lu ñu fekkoon suñu seex ñaan la ngeen gërëm yàlla defal ci barke di nuyu di leen gërëm di leen di nuyu soxna maam say bu baax ak ñi fi fekk ñëpp. waaw dañ ñu invité di ñëw te xam na dëkk ku nekk yaay defaral sa bopp sa dëkk dëkk bu nekk ña fa dëkk ñoo ko war a defar kon ñoom buñ takkoo tey jii ne dañuy defar Madiyana ñëpp dañ koy rafetloo parce que jàppal leen ci ñuy ñaan yàlla rek lépp sotti jàmm ak salaam ba nga xam ne Madiyana dañ koy defar ba nga xam ne benn quartier du ko dàq benn quartier résidentiel du ko dàq waaw ñuy ñaan yàlla Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké fekke ko moo ko njabootam gépp di gërëm soxna maam say baax nag ndax moom ñoo ñu invité ñu ñëw ci waaw sant bu baax di gërëm. kon maa ngi fi rek ñu daal maa ngi fi. en ngi fi. ah maa ngi ci dëkk bi rek. yaa ngi affaire. ah daal maa ngi dëkk bi. Eh, ah en tout cas maa ngi ci dëkk bi daal ah, waaye li ma mooy. Ah. Touba moom lu fi waaye def naa dugal sama loxo wala du sotti loolu la yàlla dogal. <laughs>